هيا سمن لله وللمجيء ولي ابن سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله kon sëñ Aliou nu ngi lay jox kàddu gi di wax ni liggéey baa ngi nii sëñ bi jërëjëf sëñ Mamour Lo noom it noo ngi koy siyaar bu baax mooy sunu wëllëre la kon bismillah sëñ Aliou kaddu gaa ngi nii jërë ngeen jëf kon nag liggéey bii tuuti la ci sëñ Tuubaa waaye nag danoo bëgg mu barke fi teew akus néew murit yee ko jaayante muy ci waa daayira yi ak ñi nga xam ne sax dañ koo romb rek gis liggéey bi indi fi seenu ñaq mbokk talibe itam ñog-ñog nañu ba jot nañu am 3 millions ak tuuti loolu nag dañ la koy seeree rek ngir bëgg nga dégg ko waaye xam nañ ni loolu du sa asakay jëf yow ci sëriñ bi waaye nag dañ lay ñaan nga ñaanal nu ba leenu sumb ci sëñ Touba mën a àgg àgg gi nag mooy amuñ ci génn bëgg rek gudul sax ci lii rek te bakkan bañ cee am bànneex bañ cee am àdduna bañ ci am ñoo ngi yëkkati kàddu yu sell bàyyi ko fu sell wàcc ci jëmm joo xam ni xëy na fa mu jóge nam fa matee jëmm ji ñu ko jox bu ko dee wax làmmiñam mën na caa lot waaye lu ci dëng ñu xam ne ci koy wax la waaye fa mu bàyyi ko moom mat na fa sëkk sëriñ xaadim ngay delloo borom ndaam mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant te di leen gërëm yéen naa kuréelu xidmatu xadim gépp Seydina Aliou sëñ Jeesi sëñ Maam Góor ak mboolem ni ngeen ko sékkal mi ngi leen di siyaare di leen ndokkeel di leen tatagal te di leen màggal nee na di dikk gi mu dikk fii gisul barab mbaa jootaay boo xam ni war na faa mën a teg tànkam bu gën a kawe jootaay bii wala bu ko ëpp xéewal wala bu ko ëpp tawféex wala boo xam ne dana fa séntu lenn ci sëñ tubaa lu ëpp lii mu fekk fii nee ndax ay ndaw yi dajaloo doon ay tuut tànk ak ni jamono dëppoo kenn ku ne mënoon am ci lu mu ne ak yëngu-yëngu jamono yi ngeen bàyyi loolu lépp juble ki nga xam ni lu baax àddina àllaaxira moo ko yor muy sëñ tubaa lam ne woon wa joxtu wa siir lahoo bi xidmat yi xubban lahoo wa ab tahiri daahoo ma aridal muhaddami wa huwa xillii wa xibbii wasilati wa nixmati faridati naafilati sabidiyal muxawami nee na jël ngeen seen jubluwaay jox ko sëñ tubaa dugal ko ci seeni xol muy seen soppe di seenub sëriñ di seen tegtaluwaay te nee na ak fi jamono toll ngeen def loolu di ndaw nee na nag képp kuy lëggeel sëñ tubaa mbaa muy gaawtul mbiram ci sëñ tubaa nee bu ko ñëwee ci yéen sëñ bi dana nangu ab liggéeyam nee na kon nag rafet na njott bu baax ci liggéey bii di leen sant di leen gërëm ñëw ci jàmm mu ne yoon wi ki leen woo moo leen ko ubbil nee na mi ngi sàkku ci yéen ngeen yóbbaaleel ko yéeneem ak pas-pasam te ngeen fasaale ko bu baax nee na ndax liggéey bi àttan na lépp liggéey bu nu moom nee liggéey bu nu nangu moom man naa faj lu ne àddina ak alaaxira nee na liggéey bii man am naa rafet njot ni sëñ Tuubaa nangu na ko nee na kon nañ ci teg suñuy mbir rek bi ci jiitu mooy taalibe gu sëñ Tuubaa nangu nee na loolu doy na sëkk nag nee na doy na sëkk pajuk aajo jërëjëf. bi na sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey أعوذ بالله سمك يلا أن مسلم يلا نك تبل نرو سيدان مي فكتل جلت بقم يلا تيجا موك جيم جبل داي ميت سيدان مي دفلو جبل مدنجل تيتد يلا ني بسم الله موك نور موك نور moo tax ku koy tàmbale mbir yàlla dàq ca lor alhamdulilahi noo sant tey julli nag ci Mustapha boole cey saabaam da tàmbali nag di njëkk a borom Tuuba baax mi nu ngoy te dun ko jaawale moo jiite mooy ki nu doy di njëkk sant borom Tuuba mu baax mi nu te dun ko jaawale moo jiite mooy ki nu doy murid yi ngeen déglu kàddu seede yi bëgg ñëw te jëm ci Seex Muntaxa waykal bi wax ko ca kaw ak dëgg deesu ko xumto gaañi buñ woyafal ku yàlla jiital baaw yiw raw na nuy welaxal sëriñ bu marab sëriñ yombul murit bu ci am ku ni seex muntaxa jàppal te xam li nga am seex muntaxa mbàkke dang noo bett mbett mu rëy moo xam ni dolli na sun ci yow mu doy danoon sëriñ Moustapha Basiiru kay jëf yu jëf ku toog di am yaafuus nga ñëw ni nu def jëf ju nga def Tuubaa fi Daaru Minan fi Seex Basiiru te bi nun gañe def jëf ju nga def Tuubaa fi Daaru Minan fi Seex Basiiru tawam taawam ganyanan nun juma bole ko ablim ci ay million jebal ko cheikh Ahmadul Amin gi ñépp di rang juma bole ko ablim ci ay million jebal ko cheikh Ahmadul Amin gi ñépp di rang loolu amul lu ñuy def ñime ko def ba ag te dik ci mom diko ko wax fuñ ci toll diko ko wax motax tax bi xima xal di wadjal bañ ko sosé dañu jëk a Serigne salih Touré jox ko suñu addiya feddali ci ndax mom moy suñu buntu ci Serigne Touba ci dëkk bi té moy moy moy ki nga xamni ni lu ñu xam ci Serigne Touba moo ko moo ko xamal siyaar bi bañ ko nasé tam Serigne Cheikh mi ci mom la ñuy ñëw mo jëk wo Serigne Cheikh Abdou Latif xamal ko mbooloo mi ak ñëw gi ñu ñu fi ñett yoon muy jox ak wa Touba ba wo Serigne Cheikh Abdou Latif jox mako téléphone ba bi Serigne Bass jappé bis bi tam ñu ñëwaat ci mom xamal ko lepp tay ji na ñu ni won nak bala ñoo xey di dem dañuy sakku Serigne Cheikh ñew ci barab ba ñu wan ko mm, addiyee ji xamal ko lépp ni mu demee mu ñaanal ñu yàlla dogal nag mu am bis boo xam ne dañ ko tuddee Serigne Saliou Touré fii mu war caa dem ñu kon nag ñun duñu mën a ñàkk xëy dem man mënuñoo xëy dem mukk te ñëwuñu ba ci moom ndax buñ ko gisee mu ñaanal ñu suñu xel day dal ndax buñu waree génn Cees di yóbbu addiyee Serigne Touba ci Serigne Mountakha Serigne Cheikh Touré ñaanal ñu dégg nga day dal suñu xel te mooy li war a am moo tax ñu ànd ak télé bii di Thiès ne ko nañ dem ndax ñemewuñu liggéey bi ag te kenn du ci gis manam jëmmi sëñ Cheikh Touré nga xam mo yor kaddu gi yor lepp yalla yàlla leen rek ni mo waxan kew rek buñ ko buñ sañoon dañ ko and ak yeen kon dañu and ak xëy bu and ak yéen ba ci sëñ bi lepp waye nak gis nga ni jëmo jamono jaxatee do eh, mo suñu ana yalla sëñ tuba jàppale leen da leen yokk dëgëral leen mu ngeen yakku ko liggéeyal eh, liggéey moom sëñ Tuubaa nangu na ndax Sëñ Tuubaa moom benn taal boo xam ne da nga jëf Sëñ Tuubaa du du ko nangu moom daal am yëqin ba du yaakaar yëqin ba Sëñ Tuubaa nangu seen jëf ji waaye nag du ki ki war nangu jëf fa ngeen jëm ki xam moo moo sañ wax nangu jëf ci ngeen jëm suba yàlla na ngeen fekk Sëñ Tuubaa moo teeru leen nangul leen seen liggéey moom seen addi yi te nga ñàkk ko def yàgg koo fekk fekk Sëñ Tuubaa Δεν είναι εξήγητο. είναι εξήγητο. Δεν suñu bàq rek la mën naa ko yóbbu ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa loo koy defal rek alxuraan bokk ca moom da koy nangu moom loolu la xam moo tax mu ne nañ ko dugalal lii yóbbu leen ko ci liggéey bi jërëjëf na ko Sëriñ Tuubaa fay barke Cheikh Oumar Khattab lii jëf. sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal. alhamdulilah noo ngi sant tey julli nag. ci Mustapha boole cey saabaam da tàmbali nag di sant borom Tuuba mu baax mi nu ngoy te dun ko jaawale moonuy jiite mooy ki nu doy di njëkk borom Tuuba mu baax mi nu ngoy te dun ko jaawale moonuy jiite mooy ki nu doy murid yi ngeen déglu kàddu yi seede yi bëgg ñëw te jëm Seex Muntaxa bi wax ko ca kaw ak dëgg deesu ko xumto gaañi buñ woyafal ku yàlla jiital baaw yiw raw nu welaxal sëriñ bu marab sëriñ yombul murid bu ci am ku mel ni Cheikh muntaha jappal te xam li nga am Cheikh muntaha mbake dang no bet bet mu reuy mo xamni ni na sun yaakar ci yow ba mu doy non serigne Moustapha Basiiru kay jëf yu mu jëf ku tok ganawam di am yaafus nga ñew ni nu wif def jëf ju rëy nga def Tuubaa fi daaru minan fi Seex Basiiru te dëgg bi nun gañe def jëf ju rëy def Tuubaa fi daaru minan fi Seex Basiiru te dëgg bi nun gañe tabax jumaa boole kook ab lim ci ay miliyon jébbal ko cheikh ahmadul amin ki ñépp dirang tabax juma boole kook ab lim ci ay miliyon jébbal ko cheikh ahmadul amin ki ñépp dirang bëggoo wax lim ba doo njistal ku la naw mbaa kuy tagaateeka yéemaateeka wax waxi xew waaye ku gis nen ni lii am nan la kenn du ko bañ Seex Muntaxa Mbàkke moo baax googu kaddu du waaye ku gis nen ni lii am nan la kenn du ko bañ Seex Muntaxa Mbàkke moo baax googu kaddu du dañ borom xilaafa yi Seex Baara yomb la roy. mooy mooy fas ci ndigal. mu bañatinoo dal mukk waaw yaar yooyu rek moo noonu fas yéene fa nga jotal lu ndigal nga jotal lu ndigal li eh, eh, eh, nangul lu gën mën nangul suñu taalibe nu gën a yeesal suñu jaayante gën a mën a génn ci suñu bopp ba mën a joxe suñu bopp mën ci mën a joxe suñu bopp bu faw loolu rek mooy mooy mooy mooy maa ngi jégalu nag fitna ji nga xam ne teg teg tege naa ko. donoy Serigne Fadiloog Cheikh Bamba cër la bu rëy risaala doom gile xam naa gog musaala yamal cheikh muntaxa mbàkke moo yaaroona moo ko dëggal yaa njëkk a te yaawan gaañi yoon wanu aw babaat bi doon benn ngay soññaate mbir di law amoo kañaan amuloo ak rey jox nga ko cër Saya mbake ya yaa maya baringor ma yaa bari maylam moo tax jox la xolam Tagla fi pegam di diisoog yow ci mépp mbiram tabek alal lañu gis ay mbindéef di ko man tabek darajaak sañ-sañ koman. baax tabe alal lanu daji gis ay di ko man waaye ya tabek darajaak sañ-sañ ko baax ko man ubib juma ja bisub yawmal jumaati lawon ya yaa jiite ngir wutu abdul Akim nga kon loolu seedena seen bennoo gi ñëpp di wax sëriñ basiru njabootam noonu lañ masa mel jumnan juboo nan dañuy diisoote gàttu ñu xel nun seeni taalu be nan roy loolu sax ci ndigal di moytuwaay tere bennoo moy li leen di bëgal nun seeni taalube nan loolu sax ci di moytu bennoo mooy leen di bégal Cheikh Muntaxa ni la Seex Basiiru meloon kon nga jenga ndax yokkaan nga lii fi seexal Basiira la jur jàngal la yar la bu Madah tax nga am de xam bade war cheikh mas nani bis cheikh muntaxa ku ko amul jiwa waa mbàkke masam maasam xanaa ku mu Sadiq ga ak tab ga yow cheikh ku amul ci keng buso soobee kokki ñëpp ci xam-xam ak maandu teeg jàmbaare ak jëfu yiwu te fonko ak bokku yaatoo yaatu kenn du la daw nga kersa te am yërmande doo daw doo fàtte kenn te am nga yëg sa jikko rafet say jëf rafet na ci biir biti wax ji doo kuy waranteeg xëccoo dara yaa gën a set Cheikh Abdoulaye Laat nag mooy sa baay rabbil alamin inna lazina illa sarsara xat xasadu ziarati faaraxu daarini aw sara mbokk jullit yi mbokki taalibe yi waa kër Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul euh, ñoo ngi fii ci tableau xaar yàlla ànd ak waa nga xam ne ñooy waa fédération xidmatul xadim ci ziar bi nga xam ne ay weer ñu ngi ko doon waaj ay bis ñu koy waaj ba tey ay waxtu des si ngir ñu àgg ci Cheikh Mamadou Mountakha loolee nag kenn du leen wax dara waaye dañuy leen di bàyyi ak nga xam mooy jëriñ bi nga xam ne moo jiite jataay bi jiite mbooloo mi toll ci ñaar fukki daayira ak juróom ak ay membre engagé yoo xam ne ñu ci dëkk bi gëmuyu lenn loolu Cheikhul xadim lépp loo xam ni nit dina ko soxla wala doomu aadama dina ko jëfandikoo waa daayira Xidmatul Khadim waajal nañ ko ngi yéer ko Cheikh Mamadou Mountakha tey nag le 11 juillet incha allahu rabbi bi nga xamni Cheikh moom Cheikh Serigne Bass Abdou Khader jàppaloon nako fédération bi ñu ngi ni di waaj jëwriñ fan ngeen tollu ci waajtaay bi ak nan ngeen fassiyene doxale convoi bi bismillahim salli ala ghaus wa ghais wa riyaas wa salli man yaa man maha leptiyaas jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba abdullah qadimu rasulullah khalilullah xabibullahi zahiran wa batina jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba jarullah mbokki julli mbok mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh noo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar tàmbalee ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan su borom may ko gudd fan lool ak wérug yaram ba li mun naa lépp ci liggéeyal ko sëriñ Touba mu jëf ko ba jëf lu kaay njottam te ñu ko ànd ànd ko ak moom di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gépp ak mboolem jullit yi ak mboolem taalibe yëpp Serigne Mouhamadou jërëjëf wax nga dëgg bis bi ñu doon seenu ak si na tey bis boo xam ni dañoo àndandoo nag fas yéenee jébbale suñu addiya muy jotaay bu jëkk ci fédération Xamatu Xadim ci ànd gi nga xam ne booy nañ ko suñu bopp diir boobu boo xam ni yem toll nag ñeenti at ah suñu sedd nag lool ndax Cheikh Abdoul Bachir mi nga xam ne moom Cheikh Abdou Khadir mooy porte-parole yoonu murit moo nu jàppal bis bi waaye mbokk bi wane ci Pastef nag ndax fii ci tableau xaar yàlla huit lañ fi joxe woon waaye mel na ni huit heures et quelque oto yëpp teew na daanaka ñaari oto ñoo ñëwagul muy loo xam ne itam wane na ni mbokk tay bi gëm nañ ni ñuy def te bëgg nañ sëriñ bi te am nañ ci pas bu baax a baax ñuy sant bu baax sëriñ Saliou ture mi nga xam ni moo fi nekkal sëñ Touba nga xam ne lii lépp moo ko tàggat ci xol yi waa Thiès xamal leen sëñ Touba ba ñu bëgg ko xamal leen ko xiirtal ci nang koo liggéeyal ba tax na euh, Thiès seen bëgg sëriñ Touba ak seen gëm ko ak seen wóolu ko moom am na ci wàll bu baax a baax yal ko yàlla gën a doolee wéral te sàmm ko kon daal suñu xol sedd na fas yéene nag jëm ci dëkk bu tedd boobu di Touba xarasahallah dëkk boobu nga xam ni wax nga ko léegi sëriñ bi waxoon na ni buñ ko siyaaree sar Sarsara sun borom ko ko fek siar ko sun borom jéggal sa bakkar way Cheikh abdou Ahad non na lolu da ko waxee fofa waaye ba fiñu tollu dekkum bi Touba ku fi ñew siyaare ko di nga ci am tagok bakkar ba faw kon nak jëm ci dekk bobu lañ fas yéene xol muy ben fas dem fak sakku aw yiw ak barké ak ngërëmal Serigne Touba di sante bu baaxa baax mbolé wa dekk bi ndax bar nañu demul te dem moy borom xol yi rafet yi ak yéen yu sel yi ak ñu yóbbante seen addu ya nga xani ba légui rek ay ñu romb di joxe seen addu ya kon nak ñu ngi fasalé mourid yépp liggéey bii bàyyiwun ci kenn di fasaale murid yëpp yëpp yëpp képp koo xam ne sab xol Sëñ Tuubaa nga biir rek ñoo ngi fasaale ci liggéey bii lépp lu ñu ci am yàlla ñu ko bokk ak murid barke Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw mel ni li ngeen waajaloon ci ay badge dafa tolloon mhm. biir mbooloo bi am ñoo xam dañ naan amuñu badge kon dafa mel ni mbooloo mi 800 personnes yi ñu calculé woon dafa mel ni ko romb na waaw romb na ko bu baax a baax li waral loon nag tuuti rek ci jëwriñ yi ndax dañoo waxoon ni kenn ko na saytu li muy soxla ci mbooloom wax ko ñu mën koo defar ndax bu bis bi gën a jege liggéey day bari waaye am na ci ñoo xam ne la ñu waxoon dafa néew xay na jàppoon ni ñay dem du bari waaye nag gars yi seen gëm seen Tuubaa ak seen wóolu ko moo tax bi yëf gën a jege rek ñëpp mujj aaw ni dañuy dem bi ñuy wax ni Badji manqué nag fekk na booba ñi ko daan liggéey maanaam xaw nañoo wàcc ndax daanaka weekend la waaye teewul ñuy def ay pexe Euh, ndax dese woon nañu ci carte yi nga xam ne mooy dem ci Badji yi bëgg léegi ñu départ ñu wote ñu fa nekk ñu wutal ñu ay support Badji yi bu ñu àggee rek rapidement ñu fexe faa liggéey ay Badji yoo xam ne ñëpp dañuy takk loolu mooy sunu xalaat ci mbir moom incha allah di ci sant baax waaye daal moom lu wétewul mooy 800 personnes moom na a a a baax waaw alhamdulilah rabbil alamin dafa mel motar bi ñu doon xaar ñëw na waaw motaris bi ñëw na gendarmerie moo ko fi yebal booba léegi mi ngi zalone fi ne sax mi ngi ne di avancé ak arrière di defar euh, maanaam euh, convent yi accès ñu départ di sant baax na Serigne Cheikh Touré moom Serigne Saliou Touré ndax démb ñaanal na mbooloo mi ndax moom xam ngeen ni mooy doxal Serigne bi lépp ziar bi itam am na ci taxawaay lool waaye noonu tamit Serigne Mbacke Madina Serigne Serigne Lamine Mbacke Serigne Mbacke Madina noonu moom ma nga ñuy xaar Touba dégg nga euh, Serigne Khadim Lo Gaydel moom itam ñëw na fi démb maanaam léemu jotaay bi ñaanal ñu barkeelu addiyaam itam ci liggéey bi Serigne Moustapha Monsieur Abdoulaye ma nga ñuy xaar Touba dëkk bi bari na ay kilifa yoo xam ne wax dëgg yàlla yebal nañ seenu njaboot ku ci mel ni Serigne Khadim si di di ko bëgg Serigne Touba ñu xam ko ci dëkk bi ak njabootam ñu ngi ci mhm. ak yeneen kilifa bu ñu sax mën naa mën naa kii waaye nag euh, bu ñu bu ñu tuddee ñooñu rek Serigne Cheikh Bara Ndiaye mhm. bokk ci mbooloom itam kazalika daayira yi daal moom teew nañu tey it ñu baree bay yóbbu nañu seen i seen i ziyaare ci sëriñ bi ak seen i addiya ndax loolu mooy xamatu xadim mbooloo moo xam dafa jug rek ngir lëkkale murit yi ñu àndandoo liggéeyal seen Tuubaa te du yàqal kenn ku nekk ca fa nga nekk la nga fa la nga fay doxal du yàq dara lii ab ànd boo xam ne dañ koy ànd di ko dox ci ay liggéey waaye teewul ku ne fa nekk yaa nga fa soxna bu sa Mbàkke yaa ngi ma koy fàttali jërëjëf mooy itam moom seen ma numbe ndax euh, waajuram sëñ Abdourahmane Mbàkke euh, euh, seen ma numbe mooy waajuram muy ko xay tam wax yàlla ku am yéene ci liggéey bi la moom tamit yàlla da ko jutta agsi waaye yéeneem ak papasam ak bëggam ci ziar bi feeñal na bu baax a baax a baax ak mboolem kilifay Thiès yëpp di len sant di len gërëm di sant Thiès TV gi ñu andal nga xamni ñom ñu andal ci wataayu ziar ba fii ñu toll ñi ngi ni wara and ak ñom ba Touba sëñ Lamine ñew fi ak soxna Awa Fall ñu koy sant bu baax di len ziar di ziaré bu baax ki nga xamni moy mooy malik Malick ak ñi seq télé ba ñepp wax de yalla liggéey bi amna ci waccu way amna ñu yene àggee ko sëriñ bi ndax bañ ko dooree batay fuñu mësa ñu buñu len toll ñu wuyu ñu wuyuñu jàppalañ ci liggéey bi kon nak bëgg nañ sëriñ bi sak defal len ñaan sak ko ci sakul len ñaan ci mom ak mbooleem ñi nga xamni ñi japp ci liggéey bi ndax lu waay def ci njabootu sëriñ touba rek mo nga ko defal moom Cheikh Abdou muntaka kon lool lepp rek ñi ci ciy sant bu baax fas fas yéene bu ñu àggee ñaanal ko sëriñ bi sàkku ñaan ci ñëpp mhm. jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf sëriñ jëwriñ Alioune Diop moom mi nga xam ne wax dëgg yàlla moo coordonné liggéey ba mu ëgsi fii muy jëwriñ jëwriñ ju jàmbaare ndax mbooloo mu nekk ko jiite rek na mu doxee rek noonu la mbooloo mi doxee moo tax mbooloo mi doxee ci Pastef bii ñu doxee kon nii la Thiès TV ànd ak yéen ànd ko xidmatul xadim incha allahu rabbi ci yoon wi ñu yëge péage bi ba nañu wàcce péage bi ba ñu dugg kër Cheikh Sëñ Abdou Basir ba nañu dem ziyaare Cheikh Mamadou Mountakha di ko jébbal euh, addiya ji dara du leen ci Thiès TV ñu leen indi lépp sa jëriñ waaw DTS rek laay wax suñu site bi mhm. nga xam ne sëriñ euh, Xadim Ndiir moo ko yor mhm. muy tasadu si xaar mhm. Euh, di site boo xam ne day ànd ñun ci liggéey bi moo tam ñu ngi koy sant bu baax baax ak ñi nga xam ne dañu faral di ànd ak ñun ñëpp ci liggéey bi waaye ñoom ñi tam dañoo bokk ci suñu biir kon ñu leen siyaare baax di siyaare sëñ Papa Ndiir bi nga xam ne mooy jëriñu mbooloo mi ak sëñ Mamadou si yow yow da nga ci taxaw ñaari tànk ndax yow jëwriñ nga ci mbooloo mi ci tasadu si xaar waaye doonaat jëwriñ ci ci ne sa taxawaay bopp la waaye doon imaam ci biir mbooloo mi doon doon koo ci anam a rafet te dëppoog baax baax di la gërëm di sant jëwriñ yëpp di leen ziyaara jërëjëf jëwriñ bu baax ko defee noonu la ñu ànd ak yéen rek incha allahu rabbi départ bi ba mi yéeg ni ñuy wàccee dara du leen ci euh, bi nga xam ne sëñ Papa moo ko jiitee ànd koog jigéenam yu baax yi macha allah soxna fat Babu ak ñi nga xamni ñom la ko andal ñep ak ñi nga xamni soxna Ndey Ami ak ki nga xamni moy soxna Jenn mi faaje waaje jox kaddu gi ñom ñuy ay jambar ci federation Xidmatul khadim wacc nañu ba dugg ci biir ñom respecté nañu li nga xamni waxon nañ ko ndax ku ñew bu wacc auto bi ñom respecté soxna Asu euh, lan nga yek ci ziar bi nga xamni manam maanaam khadim mi ngi koy wax xana contane rek assalamu alaykum ay ziar contane na trop mënumaa wax dal dama contane yalla nañ dem ci jamm ñibisi ci jamm fek fa jamm yal nañu sekk sëñ siyaara sëñ bi yàgg koo siyaara yàgg yàgg ko faa fekk defal ni taw feex ak saayir ak baatin wubbil ni bunti xiiwal ak yërmaane saa borom loolu lépp lépp siyaar bu mel nii moom mosuma koo gis kees moo tax ma kontaan ndax kees dafa war a bokk ci siyaar dëkk boo xam ne dafa war a bokk ndax bu ñu sampalee sëñ Sall Touré rek lan kontaan loolu rek moo tax nag siyaar bi moom wax dëgg yàlla kontaan naa daal yal na saa borom def yeggale. yéen tàllal suñu micro rek kenn ci soxna yi soxna si tur wi. ah ah jaariyatu jaariyatu nan jaariyatu park dafa mel ni yaay ñu ngi ci waajtaalu ziar bi egg nañu lan yëg yëg yëg bi nga am ci ziar bi ak it ndax ziar mel ni mës nga ko gis wala déet. ziar moo dëgg taw feex la moom taw feex la bu ñu Serigne Touba defal te daanaka naa ziar bu mel ni moom mi ngi fi doog a am kontaan nañ trop ak sëriñ Touba waaw. <laughs> jërëjëf bu jërëjëf ñu ngi leen. ci jàkka yi ci ci cëppaandaw ji ban yëg-yëg nga ci am. jërëjëf sëñ Ndiaye si asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu sëñ Ndiaye si moom ziar bi liñ si yëg bari na lool am na loo xam ne mën nañ kaa wax am na loo xam ne mën na su kaa wax waaye liñ si mën a wax lépp rek sant yàlla delloo sant daal sëñ Tuubaa delloo ko njugal xam ni ne Ahmadul Xadim moom mooy kenn te li nga xam ne ñu ngi fas yéene def mu siyaare sëñ Tuubaa mu siyaare xalifa général des mourides mu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te eh, lépp loo xam ne def nañ ko si rek muy lu baax ak lépp loo xam ne luy aw yiw la yàlla na ko si borom boole sotti ko si adduna bépp sotti ko si bépp yoonu murit la la sëñ Tuubaa ne woon inna lesina ila sar saara xar xasadoo si yaatil faaroxoo daarin aw saara googu yàlla ko suñu borom boole sëñ Jeesu daal moom waa jaale borom marax ak mboolem fédération xidmatu nan baax ndax man na ni ban ko siyaar ban ko waaje ba léegi nelawun guddi nelawun bëccëg ngir bëgg rek lépp rek jag waaye nag yoonu sëriñ bi moom mooy moom moo demee noonu lépp moom loo la am amul tànk ginnaaw kon sëñ Jeesu euh, li ne sax mën na su ko génne ndax sant sëñ moom mënut a weesu sant sëñ Tuubaa kon jërëjëf sëñ Jeysu jërëjëf euh, mu jaar bi ñu ngi ci kaar bi nga xam ne waa daayira euh, Miftaahul Xayri bi nga xam ne sëñ Pape moom moo ko jiite ñu fas yéene dëkk sunu micro ki nga xam ne mooy soxna Kodd moom it di jëwriñ ci liggéey bi waaye tamit di ci jàmbaar te am ci taxawaay lool soxna si yëg-yëg bi waa Miftaahul Xayri am tey ci waxtu wiñ toll nii jëm ci Cheikh Mamadou Mountakha fas yéene ko jëbal suñu liggéey ban yëg-yëg ngeen ci am ah, liggéey bi rafet na taxawaay bi rafet na dëgg yàlla dara lu ko sama mbokk soxna it nuy naa leen ziyaar leen bu baax a baax a baax kenn ëpp leen Pastef boobu ba nëgën si kenn nelawul kenn toogul biig ba léegi woon na jëmi sëñ Tuubaa Mbàkke laay nag am ñu lu du sëñ Tuubaa tàmbale ci sëñ Tuubaa yem ci sëñ Tuubaa di sant si naa leen bu baax di ko gërëm di ko ziyaar di ko jox wàcc waay di ko masawu coono sëñ Mouhamadou si yéen kenn du yéen ñun daal waa xidmatul xadim ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar ñun waa daal Miftaaxul Xayri Tuubaa Silma ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jërë ngeen jëf jërë ngeen liggéey bu rafet macha allah jërëjëf li wajhi والآيات لنا المقبول علمني علم عند سابرات بما يسار والمقال كافرا لم يروني عند النور المغلقات لا يرون الأمدوات فاسرات يسر لي الجميل عند المغلقات وسالني عن جانب المشركات عباد من بكان عند المعزات هذا لك الكثير دا وسادعا مد لي الأنوار الظالمين من كفى لسدما زاد به لله إلهي لزمنا من نزر البلاء لم ينولي من نزر الخمار سوالنا باقي الخمور ما يلي الله لنا أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل كتاب أكرمني من نزل الإسراك من قال لي إليك الإسراك نادته عافيتني إبليس إنك ولي ناديت يا نذير يا ولي عافيتني إبليس إنك ولي إليك يا خير البرية سلام حكيمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام بالآل والأصحاب السلام مصطفى من كل مقام يا نور كل حادث سام وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بنور من أباك في الكلام مسألة الجميع يا خير إمام بما نويت فيك سعي ذات ما عبد النبي والرسول والإمام نعم الوسيلة لربي سمدي ربي يا أحمد على محمد نعم الوسيلة لربي سمدي ربي يا أحمد على محمد نعم الوسيلة لربي سمدي jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba Cheikh Ahmadou na nangul la jot na jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba ci kaw la war na nangul la jot na jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba jëfal nga buur ba jëfal yonen ba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba jëfal nga buur ba jëfal yonen ba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba sant la war na nangul la jot na jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba sant la war na nangul la jot na jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba sant la war na nangul jërëjëf Seex Ahmadu Bamba ya sayyidi asnadira ñaanalana famitala mama bika fa anta sayyidi khairul anam rawaytu shukra alayka gulam wa kullu sir wal kitab al-idam rawaytu shukra alayka min ilam wa khairu ya sa jawami al-kalam hadiyati mustaraman bil-intilam ya ma'idan lil ilahi لرب زائر الجزا النزال لك الحمد ربك من المعرف القلوب دانية ملكني الماء هدايا كافية كل أزل من خير آل كافية فلا بخدم لا زانية لا من الخدم ليس فانية يسر سيد حروف دانية إلى جناني إليها سانية هديتي النبي سافيا بشارة وخيور دافية من خلال بالنبي هادية بلادنا لمن خلاف بالية خدمة غير العالمين جالية حاليا فدور من فقالية محمدنا نقر جل مالية كل محيط قوة يا من المختار والتقافية حابية بالرب ولون القاسية على نوادي الأسدار الناسية ناجيت فيه بالجمعة الثانية من المحرم المنير الدانية ناجيت فيه بالجمعة الثانية من المحرم المنير الدانية وجعت كل لجروة لسمدي ساخمة للمصطفى محمد وجعت كل للوداد سمدي ساخمة سلمان ما خليفة للأجنان جمع كل بنبي أناني بركة السنين والفاروق جامعة المدور والمفروق هدم رب راشد النورين ووالد الزبدين في الدارين فبسافة النبي الأنبياء عليهم رمال مجرى الأصدياء أفلين من لوى حزهم والدا فتبدو المصوم رفع

الزياد من قال نبتنا بملنا سريعا قال برزق لرضا سريعا عند القوي والقوي أولى بأن يكون ناصرا ومولى عند الرهيب ورهيب أول بسوء شاكر أتاه أمل لك المياه وإنك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سميتنا يا ربنا وقيلنا سربنا يا ربنا وكرنا في كل شيء بالله يا نور يا نور بأن يخصص بخير يدر هدم سلامك بلا نهاية لمن هوى فلن بخير هاية الحمد لله تزيد خروج ما يعين رحمتي للمصطفى رب صلاة وسلام بالآل والصحب من الله سلام حبي السلام يا ملوك اليتيم من الآد والأسى والفريتي منلت بالهمة من كل درر حبي الأجاد من صلاة وقرر وعلي استجرت بالمسر بلا معادة ولا مدر لك الولا واليد هل سوانا يسوع تدعو لك لي الدنيا والجنون وقلت لي وليسوع تسورا عجبتني بمسر لا تعرفا عليك يا من لي بلافا هديتني هداية الرسول من بعدها لم يكن لي دار مدل وسندني يا عبدي في توبة وكفي شفيا للمنى قديم عبدك المصطفى يا لطفي قبل قديم عبدك يا لطفي وجهت للفاد الغليم يا قليل وبالذي وهو ينير العقلي وجهت للفاد الغليم يا قليل وبالذي you. ko defee bu ko defee sëñ Bass Abdou ñu ngi fii buntu ko sëñ Bass Abdou mi ngi nii génn waree war a war a war a ñaanal fédération bi nga xam ne moom la fekk muy étudiants yi su noppee nag incha allahu rabbi ci waa fédération xidmatul xadim ci la jëm si ngir ñaanal leen kon bu ko defee ñu ngi fii ci buntu kër sëñ Abdou Khader mi nga xam ne mooy porte parole yoonu murit moom mi nga xam ni moom moo ñu jàppaloon bis bii moom mu ngi nii léegi dem di ñaanal ñee incha allah su noppee dana ñëw ci fédération xidmati xadim bu ko defee fédération bi dem nañu ci sëñ Bass sëñ Mountakha jébbale nañu ziar bi ci lu tolloo 3 millions 500 bu ko defee jëwri ñi mën a dugg dugg nañu waaye mu nekk ziar boo xam ne ziar bu xaw a doy waar la ndax metti na lool waaye sëñ Touba jar ko ndax li sëñ Touba waxoon ni ñi nga xam ne ñoo ñëw fii ci Sarsara ziar si ma moom yàlla sa borom tagg na leen ak bakkaar kon nag wër te yomb ci ki nga xam ne dafa ñëw fii nga xam ne mooy ci Touba ñëw ziar rek ñibbiwaat yem ak ñi nga xam ne ñoo fekkoon sëñ Touba sar sara kon war naa métti lool moo tax ngir gisanteeg sëñ bi mu am jafe-jafe lool waaye tamit jar na ko ndax janloog jëmmam ji day far bakkaar kon bu ko defee ñu ànd ak yéen ak télévision Thiès TV gis ngeen kuréel bi nga xam ne maanaam ñooy jàng nii ci buddu kër sëñ Abbas Abdou Khadre su noppee nag allahu rabbi dañuy daa di dem fële ca ma mu ñaanal fédération bi ñu daal delluwaat nag kii nga xam ne mooy dal ba bu fi jógee tey dinañ jàpp dinañ jaar kër sëñ euh, Mouhamad Lamine mu sëñ Mbacke Madina jaar fi nga xam ne mooy kër sëñ Moustapha mbake mu sëñ Abdoulaye incha allahu rabi programme bi daal loolu la incha allah bu ci kanam nag dinañ jéem gis jëriñ jokkoo ak moom li nga xam ni moom lañ jëlee ci biir ziar ba bisimilah. ñoo ngànk liggéey bi ñoom ñoom dugoon nañu ci nga xam ne mooy ci biir euh, Cheikh Mountakha sëñ euh, Abdou Gueye doo ñu résumé li nga xam ne moom ngeen jëlee ci biir ak kàddu gi xam ne jox ngeen dégg ak sëriñ bi. Mm-hmm. waaw bisimilah barke borom Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbooleem mbokki taalibe yëpp di ziare mbooleem kuréelu waa xidmatul xaddiim xam naa kàddu yi nga xamante bi moom la sëriñ bi jox joxal mbooloo mi ak cant yi dañ koy bàyyi jëwriñ Seydina Aline waaye li ñuy wax rek mooy nan sant yàlla bi nu yàlla wommatee ba nu ñëw Touba jébbal addi yi nga xam ni dajale woon nañ ko Cheikh Mamadou Mountakha loolu rek doy nag sant ñëw suufu Touba rek yendu fi ba ngoon rek doy nag sant bañ ko jébbalee addi ya pare bi kontaan bi ñaan loolu doy nag sant ndax dëkk bi képp ku fi ñëw am nga mucc àdduna ak àllaaxira rawatina nga ñëw fi def si fi lu baax danoo dajale addi ñëw andil ko sëñ ndax suñu tubaab dafa xam ni fa kullu man xaddamani aw zaara fa najjihi wax fir lahu aw zaara képp ko nga xamante bi dox naag tànkam ba siyaar si wala mu liggéeyal ma yow sunu borom na ko jéggal te tey dañoo liggéeyal sëñ tubaa ba liggéey bi mat ñu dajale ko ñëw ñëw jëbbal ko sëñ tubaa siyaar si sëñ kon nag nañu xam ni am nañ tawféex ju rëy wëlbatikuwaat ñëw fii ci kër sëñ Bass Abdoul Khadr nga xam ni mooy yor kaddu yoon wi war ñoo dalal léegi moom it sant mboolo mi gërëm mboolo mi ñaanal ñu soog a dellu Thiès kon lii daal ak cant rek lañ ciy am ñu gën a jàpp mbooloo mi gën a téye mbooloo mi ñaan sëñ Tuubaa sàmmal na mbooloo mi ci barke si Amadou Bamba Xaadim Rasuul salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kooku mooy jëriñ Abdou Gueye bu ko defee ñuy si benn jëw rek euh, demee ni euh, kenn ci jëriñ ci sëñ euh, moodu mbay Mbaye Fall moom it mu may ñu ñaari kàddu rek ci nga xam ne moo am ziar bi ñi nga xam ne jëbbal nañu addiya ji sëñ waaw xanaa gën a nuyu mbooloo mi gën a santaat yàlla bu baax ndax daa mbir moo xam bu sant yàlla manam mbirum serigne bu serigne bo da nga wara sant yalla eh, li ci moy soñu soññ ko soññ moy ni gëna gor gorlu ndax serigne bi sass nañu man sama kàddu dama koy teunk jere jere jërëjëf jere jërëjëf ah, waaw waaw waaw waaw bu ko defé ñu ngi fi kenn ci jëwriñ yi muy jëwriñ Abdou Latif Kandji mom di kangam ci ñi nga xamni manam ño duggon ci biir jandok serigne bi lan ngeen fa jëlé serigne bi ci ñu nga teunkal ñu ko sant serigne Tuubaa rek serigne Mamadou si wax dëgg yalla jallo biñu ñu jàkkaarloo sëriñ bi wax dëgg yalla am nañ ci tawfiq bu baaxa baax te it nag li ñu bëggoon te taxoon ñoo jóg mën nañu am nañ ko ndax suñu addiye rek lañ andi woon bëgg ko jébbal mu nungul ko ko te jébbal nañ ko ko mu nungul ñu ko kon loolu doy na sëkk ak sant wax dëgg yàlla te nag lu ñëpp bokk lu ci waaye am rek da koy daal doyloo ku ne xam na ni sëriñ bi fi mu ne nii kenn mënu cee yaatu ni nga ko bëggee dëgg ni ñu ci suñu xir ak suñu bëggee maye waaye nag liñ ci mën a am ko néew rek ndiyam dañ ko bokk ñëpp rek ñu mën a doyloo loolu te des mom serigne bi dinañu ko mottali inshallah allah jerejeuf jërëjëf euh, Abdou Latif ñu ngi lay sante bu baax baax kon bu ko defé sëñ euh, mbay sar wala nga dimbali ma ma jot ci jeuwriñ mu amal ma résumé bu ndaw rek inshallah allah mbay sar euh mi nga xane manam maanaam ñoo ŋànk liggéey bi mbay sar euh bokkon ke ñi nga xamone yene a jëbale ji lan nga ñu mëna jox ci li nekkon ci biir. assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi siyaar bu baax Baye wone ñu ngi sante bu baax ci liggéey bi ni muy doxé wax dëgg fa li ñu ciy wax du bari ndax euh, lii koo gis xam ne liggéey bu daw yaram la sëriñ bi rek moo tax ñu koy def kon nag sëriñ bi nga xamante ne moom moo tax ñu àndandoon nasoo ci buum yàlla nañu teelul boppam te teelul ñoom boppam ba li ñuy bëgg ci ci liggéey bi yëpp ñu mën koo àggale wax dëgg fa la ñu ngi beral mention spéciale waa fédération Xidmatul Xadim gépp rawatina jëwrin naa Aline Diop ndax seen taxawaay ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko waaye it ñëwee ba Touba taxaw ngeen murit yi ngir jëmmi suñ Touba kon nag lii mooy li nga xam te ne moom la suñ tubaa doon wax yaa rabbi ijalin muridina maha yi xis nikal xasimi wasam laj maha kon nag yàlla nañ suñ tubaa dugal ci biir bayit woow ci barkeb borom tubaa barkeb xasida yi jërë ngeen jëf wa rahmatullah jërëjëf sëñ Bay kon la sëñ Bass Abdou mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, xam naa ni kaddu yi kaddu yi kaddu yi mbooloo mi laa bëgg a yëkkati sëriñ bi noo ngi leen nuyu bu baax a baax di la siyaare bu baax Mbàkke di la sant bu baax di la ñaanal gudd fan lool ak wérug yaram Mbàkke ba lay sa mbooloo mi mooy sa mbooloo mi nga xam ne ñoo fi dikkoon sàkku ci yow ah, a bëgg ànd ak yow ci liggéey bu rëy bi nga xam yaa ngi koy liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nga nangu loolu ñu koy jàppaloon na bis bii tey nu ñëwoon ngir jébale suñu addiya yàlla dogal na mbooloo mi fédération la boo xam ne ëmb na ñaar fukki daayira ak lu teg a ah, siyaar bi nag mi ngi door am ndax mbooloom bi mu taxawee Cheikh Mountakha moo ko tudde woon xidmatul xadim boobu nëgg nag ci la ñu nekkoon di nat na bi ci liggéey sëriñ bi di taxaw bi si daayira yi ak bi si cant yi ak di dimbalante ci jàng alxuraan ak taalibe ba tey jii nag doon suñu siyaar bu njëkk nu ñoo ñegi woon nag bu jotoon am lu toll ci ñetti millions ak genn wàllu ak lu jëmoon ci ay bagages yoo xam ne ci ab camion lañ ko defoon ah biñ demee nag biñ duggee Touba itam ci la ma sëñ Xaadim Baas wax ni nañ jubale ci kër sëriñ ba dem jébale ko ñu lay xamal ni Mbàkke jébale nañu ko di la sant nag bu baax a baax a baax a baax ndax sunu xol sedd na mbooloo mi nag takku na lool ndax daanaka jege na ñaar fukki oto ak juróom te leen tax jóg ñoom ñëpp rek mooy fas yéene ànd laxasaayu liggéeyal sëñ Touba lii nag day jotaay bu njëkk waaye dañoo am yéene sax dàkk ci la liggéeyal sëriñ bi sax dàkk ci topp d sax dàkk ci lépp lu ñu am di ko boole waxtu wu nekk di ko andi ci liggéey bi Sëñ Tuubaa bi waaye lépp nag lu bas ko yéene ànd ak yow ngir yow képp ku bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa bu ànd ak yow dana ko def ndax yow ci sëñ bi rek nga nekk te wax dëgg yàlla ñun ñëpp gis nañu sa taxawaay ci yoon bi sa taxawaay ci diine ji wax dëgg kii wax na ko léegi saa su nekk yaa ngi ci liggéey bi ximatu xadim nag ñi ngi nii mbooloo maa ngi nii ah Mbàkke nag suñu xol sedd na guy suñu xol sedd na guy mbooloo maa ngi nii dañuy sàkku ñaan rek gën a jekku liggéey bi gën a déggoo gën a bennoo te wéy rek ci njàngaleem Serigne Touba Khadim Rasoul. yoo xam ni kàddu yi cant la rek ci Serigne bi akuk ñaan sëñ Basirou Mbacke noo ngi jégalu kàddu waaye kàddu yi kàddu xol bu sedd guy la mooy bis bi ban ko jàppee ba nëgë ban koo jàppee ba nëgë sëñ lii wax na ko léegi Mbàkke mooy yitte jépp mooy siyaar si sëriñ bi ba ñëwee fi moom ba tey mu jël mbooloo mi tudd ko xidmatul xaddim ñu ne ko fas yéene nañu ànd ak yow liggéeyal sëñ Tuubaa Seex Mamadu Muntaxaa ni nu ànd naa koog yéen boobaag tey dara desut ci liggéey bi lépp a ngi jàppandi buntu boo xam ne xidmatul xaddim dëgmal na ko dana ubbi ko ci ñëpp nag sa njabootu bopp gépp bokk na ci lépp loo xamante ni Thiès yëg nañ ni luy jàpp ni la lu sëñ bi soxla la jox nañ ñu ko ngir boole ko ci biir siyaar bi loo tam noonu la koy seeral bu baax a baax a baax kuréel gii nga xamante ni mooy xidmatul xaddim seen yitte mooy bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa seen yéene jëpp mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ñu lay ñaan Mbàkke nga dolli ñoo ñaanal ñu yokk lool. yàlla nañ ko def ci liggéey sëñ Tuubaa yàlla bu nu moyelee dara sëñ Tuubaa suñu bëgg ak suñu yéene ak suñu pas-pas ak suñu lepp yalla nay señ touba buñ genn fenn señ touba ni nga waxe ba nga ñëwé Thiès dégg nañ ko non rek mbacké lañ bëgg doxé doxee ca kaddu yooya Mbàkke jërëjëf ñëpp a sant nak ñun buñ la gisé rek suñu xol sét buñ waxul won té xol la yit mbacké rek suñu xol sét na yalla fa ñu gudd na nga wër ci doole señ ab Sakkoor Fall señ Fallu sant nañ bax kaddu yooyu rek lañ doon mottali ci jotaay bi jëf taala wa barakaatu. bokki waa daayira xidmatul xadim Thiès Cheikh Mamadou Bassir ne mi ngi leen di nuyu góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi nee na di leen masawu ci coono yi di leen jaajëfal nee na di leen xamal ne day bam leen jàppalee ziar bi waxtaan ci ak sëriñ bi boobaak léegi ba ci guddig bi nee na ma jokkool ma ak Serigne Cheikh Abdou Latif ndax mbooloom daayira bii ñëw boo ma sañoon ñu am fu yaatu fu leen sëñ bi mën a xoole ba gis leen ñoom ñëpp waaye xataayub bis bii ngeen dajal ak xataayub kër ga ku ci gusit sëriñ bi ne jàpp ne loolu moo tax waaye sëriñ baa ngi leen di gis ci ndax lépp loo xam ne daayira bi nekk nañ ko ak seen pas-pas seen yitte Cheikh Mahamadul Basir jottali ne ko Cheikh Mahamadul Muntaxa ba bàyyi woon na leen xel ne yéen a ngi ñëw xamoon na it na mbooloo ngeen di doon sëriñ bi nag nee na lam leen waxoon rek lay dal di feddaliwaat mooy daayira bi day daayira gone ak jigéen ngeen toll ci buntub àdduna dégmal sëñ tubaa di ko wut nee na mu leen di xamal ne sëriñ Touba lépp lu sell rek moo jëm ca moom ginnaaw yàlla dogal na ngeen jaayante ak moom fas yéene koo liggéeyal lépp loo xam ne bu sëriñ Touba toogoon yow loo wéet wéet bu sëñ Touba toogoon lii may bëgg a def du ma ko def Cheikh Mahamadul Basir nee na loola na nga ko jomb ngir yàlla donte kenn gisu la ndax kat taalibeb sëriñ Touba dëggam ak yàlla daa war a leer naññ diggam ak sëriñ bi soo ko leer kon nag nee na mi ngi leen di soññ ci ak njub di leen soññ itam ñi nga xam ne ñoo toll ci sàkku xam-xam lépp luñ mën a góorgóorlu ci seen wàllum jàng nañ ci jëm ndax sëriñ Muntaxa yitteem foofu la jëm di leen gën a soññiwaat ci liggéeyub sëriñ Touba bi nee na lépp loo xam ne sëriñ Touba santaane na ko kenn ku ci nekk loo man ak loo mënut na nga ko ci def ndax Serigne Touba ñemewut per bor daa am pay waaye nee na lu dul yàlla du yonent bi du diine nee na bu leen ci àdduna wooye na ngeen bañ ndax Serigne Touba moo ko njëkk a sànq sàkku ci boromam digal ko ndaw ñi wax leen na leen na ngeen ittewoo ak njub woo xam-xam tey toog ci jotaay bi yoo xamante ne bi boo fa toogoo dolli koo yàlla Serigne Bassirou nag nee na ndigalul Serigne Touba lool képp lay feddliwaat ci yéen di xamal ne xolam sedd na ñëw ngeen ci jamonoy tàngaay ñëw ci jamonoy xat waaye na leen wóor na mag ñi dañ di dox jëm gànnaar di siyaare gi Serigne Touba ñu leen di dogale ci yoon wi di leen rey ak di nangu an kon nag yéen bu ngeen duggee ci ay oto bàyyi koo Thiès ñëw fii yu ngeen fi war a war ngeen koo mën muñ ngir Serigne Touba ndax li ngeen koy ëpp kon nee mi ngi leen di ñaanal yàlla lépp lu nit mas a ci siyaare ji waaju baax yàlla ngeen ko jëlee ci seen siyaare bii yéen ñëpp bu ngeen delloo kenn ku ci nekk yàlla na yokk ba yëg ci mu ak mi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba lépp luy seen aajo yal na ko sëñ Touba faj ci seen jàkkaarloo gi ngeen jàkkaarloo ak moom mi ngi leen di sant di leen gërëm di sàkku yéen ñëpp ngeen maasa tàllal seen loxo te fas ci li bëgg te xam ne mooy ñaan waaye sëñ Touba mooy maye jërë ngeen jëf nangu leen ñaan wax leen amin nangu leen ñaan tey wax amin nangu leen ñaan tey wax amin nanguleen leen ñaan tey wax amin amin di woo leen billahi qala ja ma adama qana hoqatu min dara billahi qala ja innaka al-mawlud مدبي بدنا مغبنا يا زياد مزمي مغبنا مدبي بدنا مغبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وجه سواد الدين البايعات ودفنا إذا مع الوبائقات وبين مصيبا بغير رد درنا لنا سجد يا خالق الكبار وجملة الصغار عند الباري وهب لنا سرية قديم العمل الصالح يا قديم وهب لنا سرية قديم العمل الصالح يا قديم الامن واليسر غير سدني بغير زين قد اتى بمددي حتى كل زين المالك المكرم المتهدي ما سيد القران النبي نجا بما يديم خير سددي ما سيد القران النبي نجا بما يديم خير سددي ما سيد القران النبي نجا بما يديم خير سددي ما سيد